jamono ji tali wi di wéy di jël ay bakkan ci réew bu Sénégal ci biir semaine bi lu jege fanweeri doomu aadama daanaka ñàkk nañu seen ay bakkan ci ay accident bi ci njëkk mooy bi xewee ci diggante Nioro ak Dingiraay ci biñ njee jógee ci màggalu ko Poroxaan gile boobu boobule li ko waral di ab bis bu jógee woon Touba vide doon jël si ay client ca Poroxaan moom moo dal ci ab njaganjaay bu jóge woon Poroxaan yëpp ay nit ba fees. tey am nañ naxar bu métti parce que bañ jullee tisbaar ba pare. ah ci lañ ñu informé wax ñu ne daal am na accident bu métti bu am entre Dingiraay ak Nioro tout juste soo jógee Nioro balaa ngay yegg ji Dingiraay à un kilomètre fii si commune commune Paoskoto ah maire nag bu Daaru Salaam moo tombé si accident bi aussitôt après ci la o la sous-préfet de Paoskoto mu oo ma ñu o sapeur pompier gendarmerie ambulance yi médecin chef ba sëriñ bi sax ngeen di gis ni sëriñ Bas ñëw aussi seet si donc li xew ñaanal ñi nga xam ne faatu nañ xool aussi blessé yi taxaw leen donc vraiment euh, métti na parce que au total am nañ fukki nit ak benn ñi nga xam ne seen bak fukki nit ak ñett ñi nga xam ne seen bakkan fii la yem ak ay blessé yoo xam ne ñii yóbbu nañ leen Kaolack si hôpital régional ñi yóbbu nañ leen centre de santé. bilan bi tiis lool toll ci fukki doomu aadama ak ñett ñàkk ci seen bakkan. ñu ngi ñuy woo ci 14 heures 52 minutes secours yi ñu ngi yegg fii si 15 heures 14 minutes ci tàng-tàng bi ñu ngi xayma juróom fukk ak ñeenti victime ci biir juróom fukk ak ñeent yi amoon nañ si euh, fukk yu am ay gaañ-gaañ yu yu yu ñetti fukk ak euh, juróom-ñeenti yu si am ay gaañ-gaañ yu ndaw ak fukk ak benn ñu ñàkk euh, seen bakkan si biir fukk euh, blessé grave yi malheureusement am na ñeneen ñaari yu si ñàkkaat seen bakkan kon fu ñu toll nii am nañu fukk ak ñetti yu si ñàkk seen bakkan kilifay gox bi di Nioro ak Porokhane ñoom di yëkkati seen i kàddu di fësal ne daal mbir mi dogalub suñu borom baa ngi ci waaye tam euh, chauffeur si war nañoo sàmmonteeg bu baax a baax li nga xam ne moom moo di yar ci kaw tali bi. li ci ëpp solo nag léegi ba ma jotee si Mountakha di ko ko wax la ma wax ne ma na wax nit ñi ne leen lu am lu nekk yàllaa ko dogal waaye yàlla lu muy def lu nekk da koy wutal sabab daa am fu mu koy jaarale. sabab si nag boo ko xamee te muy jur lor da koy moytu loolu rek loolu da moytu. gis la ñu waxoon ci daje daaw bare ñu ngi jàmbat yoon yoon yu baaxut tegg yu baaxut dafa naqar di ko jàmbat bare ñu defar ko ba mu bees ba mu mel nii mu mel teewut léegi lii am am yàllaa ko dogal waaye am na sabab sabab si mooy ñàkk ni ko préfet waxee léegi ñàkk ñàkk ñàkk a doyloo ñàkk a doyloo sax laa koy waaye mm. ñàkk a doyloo weesuut ñaari fan yi màggal nga defe ne mën nga cee liggéey lu am oto bu bees la. jamono ji askan wi tiit lool tiit lool ci li nga xam ne la accident yu metti yi ñuy nemmeeku ci réewum senegal ñu bëri jàpp ne kilifa yi war nañoo jóg bu baax a baax indi ay saafara waaye ak ay matukaay ci bu xew-xew yi demee ni amee ak itam bu amul ndax accident bi mujj am démb ci suba ci yoon Ndar bi itam lu mat fukki doomu aadama ak juróom ñàkk nañ ci seen bàkkan ñëwaat nañ ci ne tali bi ren alhamdulilah defar nañ ko bees la wante nag. waroon nañ jëlaat suñuy matukaay surtout chauffeurs yi ñu jéem a wàññi ni ñuy def wàññi seen i vitesse jéem a respecter code de la route jéema ànd ak discipline malheureusement danga ci gis koo xam ne day bëgg a am ñeenti voyage juróomi voyage dem jëli ay nit delluwaat ci la ñoo gis benn bus boo xam ne vraiment dafa vide woon amutoon nit sax da doon jële ay nit ñëw mbëkkante moom ak Njaga wax dëgg yàlla choc bi métti na mais nag loolu yëpp mën nañ koo wekk si loxo yàlla mais aussi xam nañ ne chauffeur si tamit il faut que ñu wàññiwaat donc ni ñuy dawalee respecter code de la route